madame la ministre Ndeye Ramatoulaye moo ko defaral xale yi mu doon tombé ak reprise des cours yi tey malheureusement reprise amul mais elle la tenu à ce ñu dem remettre les masques mu nekk ay masques yoo xam ni standard masque pour xale parce que gis nañ ni que masque yi ci bari pour mag ñi la ñu xawoon fàtte tuuti xale yi donc mu defar ay masques booleeg du savon gel. Euh, yeneen produits yi pour ñu yóbbu ko dans les écoles donc depuis ci suba ba léegi ñu ngi ci ma ànd ci ak Gilbert Samb ma Anta Badiane ak Daouda Sow vraiment ñu dem remettre rafet euh, rafetlu nañ ko lool dem nañ si école yu bëree bëree bëri waaw tout à fait xam nga madame la ministre moom moom moom petite enfance moom moom mu lay dund donc euh, gis nañ ni que masque yi aussi am na ñoo xam ne dañuy defar masque rek pour defar masque alors que masque yi dafa war a am nu mu war a bindoo nu ñu ko war a defaree te xale yi ñu doon leen fàtte donc mu defar des masques yoo xam ni vraiment xale yi de de deux ans ba dix ans mën nañ ko takk parce que dafa nekk prototype bu masque yoo xam ni dafay adapté wu ci kanamu xale yi waaw tey euh, suñu tournée tey bi mooy jeexital tournée bi waaw euh, ministre Ndeye Ramatoulaye Gueye ku ne xam ne depuis bi mbas mi amee ba léegi dafa lancé opération pour zéro cas à Thiès moom la sama camarade bi wax léegi par rapport ak yi nga xamante ne moom la def si weeru koor bi euh, jàppale ñu bari comme lancé bi nga xamante ne moom la président euh, woote mu mu jàpp si biir ak biti par rapport ak daara yi aussi yéen gis ngeen ni dem na si tey nag ñu nekkoon si troisième phase mooy tournée dem si école primaire yi parce que dañoo gis ni masque même masque yi ñuy jaay si mbedd mi prévoir wuñu xale yi moom ku ne xam na ni mu mel si ndaw ak liggéey bi nga xamante ni def na ko bi mu yoor ministère bonne gouvernance ñu taqale woon kaak ak petite enfance euh, rôle boobu muy continuer di ko doxal ba léegi mu ne ko rôle boo xamante ni à chaque fois day méngoog lancé bi nga xamante ni moom la président woote ne moom ay mbiram génnul président mag yi mais yi muy def aussi daf koy def surtout président parce que du président moo mën a dem fépp mais day jàppale président si li nga xamante ni moom la bëgg si askan wi. tey def nañu école zone nord yëpp ñu ngi ko commencé depuis bëri dem tey lañ ko jeexal bi ñu demee aussi si école yi école yi am na école yoo xamante ni seeni douche baaxul euh, am na école yoo xamante ni amuñu mbaar yoo xamante ni fi la élèves yi di toog suñu génnee euh, am na facture yuñ ko yuñ ko jox. moom jël na lépp en charge surtout le président de la république Macky te incha allah lancé bi nga xamante ni moom moom la fekk enseignants yi di ko def bi ñu demee seen école si loolu la nekk mooy li nga xamante ni moom la président bëgg kon ministre Ndeye laay Gueye ay la yéen yi ñu ngi koy gërëm par rapport ak si maître coranique gi femmes yi aussi ñu ngi ko doon gërëm mais tey ay la yéen directeur école yi enseignement yi euh, parent d'élèves bi ñëpp ñu ngi boole jox ko loxo. Euh, si liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy liggéeyal président de la république te ñoom ñëpp pare nañu pour accompagner Ndeye Ramatoulaye si ànd gi muy ànd président de la république wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi koy jaajëfal ñu ngi jaajëfal aussi ñi nga xamante ni ñoom lañ seeti woon parce que bi ñuy dem aspect politique bi yëkkatiwuñu parce que Ndeye Ramatoulaye doon doon fekk si président si li mu bëgg mais bi ñu demee ñoom ñoo jëlal seen bopp engagement fas ne ànd ak moom liggéey ak moom si ndongo daara yi liggéey moom aussi si liggéey bi muy liggéeyal président de la république waaw. Ah, bonjour moi je m'appelle Manta Badiane je de la délégation di ministre Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop je suis accompagné de Madame Diop Silla Gilbert et Daouda nous sommes là aujourd'hui dans le contexte du Covid-19 pour appuyer les écoles primaires de, de la commune Thiès Nord donc nous avons fait le tour des écoles Donc depuis ce matin, on est sur le terrain. Nous avons remis euh, des masques standards pour les élèves. Donc euh, vous n'êtes pas sans savoir que le, euh, ces masques sont dessinés pour les élèves. Et il y a, y a, des tailles qu'il faut respecter. en tant que ministre de la protection de l'enfant et de la bonne gouvernance, le, les Ramatoulaye a confectionné des masques qui sont vraiment favorables aux, aux, à ces élèves-là. Donc, euh, on a déjà fait, euh, on a passé au niveau des différentes écoles, on a remis ça aux différents, aux différents directeurs Ils ont apprécié vraiment l'acte du ministre. Ce n'est pas la première fois qu'elle qu fasse ces gens au niveau de la commune Guest Nord. Tout récemment, avec, euh, durant le mois de Ramadan, il a vraiment assisté pas mal de familles en riz, en sucre, ainsi de suite. Donc c'est une continuité pour ces actions qu'elle mène au niveau de la commune Guest Parce que, vous n'êtes, euh, parce que vous n'êtes pas sans savoir que euh, dans ce contexte-là, les gens se con, euh, confectionnent des masques euh, globalement. Mais pour les, euh, je crois que le ministre a tenu compte de, de, de l'âge de, de des enfants. Donc nous, sommes, nous remettons des, des, des masques aux écoles primaires. Donc on, on doit tenir compte de l'âge des enfants qui varie entre 6 à 12 ans. Donc ces masques-là sont, de, de, de, sont des masques standards pour ces